maaleykum vidéo bi maa ngi koy def pour di jéggalu sama xarit yi ma woo ñëpp ak yenn kilifa yi ak yenn mbàkke mbàkke yi ak sama yenn grand yi ñi nga xamante ne dañ maa woo ma Griff kii du yow dañu doon déglu di la suivre maa ngi baalu ak ñëpp àq nag sama ami Sénap sab yeeg ñëpp parce que kooku du man parce que man du ma tooñ mais nit ñi dañ leen tooñ ngir bëgg sew base te ñi la war a ñi lay tooñ waruñu laa tooñ parce que seq ak ñoom teraanga tey ki génn daam seen mi génn di wax si man damaa seq moom teraanga barke Serigne Fallou Mbacké kon warul woon gën di wax soo amee lu ko metti ni ngeen grand yi yëkkati seen di ma woo moom loolu la waroon def mais lu muy taxaw fee du ko wax maa ngi lu ñëpp nag di baalu ñëpp ak di tuub di jéggalu ndax kooku du man parce que nit dina la topp ba nga sës. te li lay war mooy nga fay wan wan na ko man noppiwu li nga mën mën naa lu ko raw baalu àq ñépp nag parce que nit tamit day juum te nit dee la topp ba bëgg laa dóor si miir bi te ñi nga xamante ne loolu laay wax chaque jour donte nit dafa lekk sa tàngal màtt sa waru laa xas waru laa xalab donte nit dangaa seq moom teraanga waru laa xas waru laa wax lu ñaaw war a wax la bon lum la war a wax na wër sa numéro woo la wax la ko waaye maa ngi jéggalu ñëpp di tuubaat seen kanam di jéggalu di leen baalu àq bu baax a baax a baax parce que di tamit day juum te ni waxee démb sax du man mais mer naa parce que <clears throat> ki wax warul woon a wax moom ki wax dafa waroon yëkkat téléphone am ma su ko amee lu ko métti wala ko amee lu ko naqari waaye warul taxaw di wax mais maa ngi jéggalu ñëpp di jéggalu suma xaritu mbàkke mbàkke di jégalu suma yenn grand yi di jégalu sama grand bu baax duma tudd turam woo ma yedd ma di sama conseil di nit ku baax di nit ku ràññ maa ngi jégalu di baalu ak ñëpp di baalu ak ña xam nañ may suivre te musuñu ma xamee si yenn yi te musuñu maa dégg si yenn yi te musuñu maa ñëpp jox ma cër jox ma respect ah fu ma romb ñu may bégee xam ma ñii naan ma grand yaa tax ma am xam àdduna grand yaa sa conseil moo tax ma xam lu bare nangam-nangam maa ngi jégalu ñëpp ñëpp maa ngi leen di jégalu waaw sama ennemi yi sax sama noon yeeg ñëpp sax maa ngi leen di jégalu yàlla yàlla jàppale taxawu leen waaw nit nag nit la mën a doon day jékki-jékki mer explosé te doomu aadama bi koy waral mu di ko def kooku waru ko woon a def mu koy tax a jóg su defoon du ma métti su ko bi def yàlla defoon defoon ma dara du ma métti mais ki ko def moo ko waru woon def parce que moom kilifa su nekkee kilifa dafa war a woo nit ki wax ak moom mais du toog si YouTube yeeg nangam di wax maa ngi leen di